ki nga xamante ne nii mooy Wassintor ndeysaan diggante 5 tonnes ak Wassintor 5 tonnes moo ñu woon ginnaaw Wassintor lañ jàkkaar lool diggante 5 tonnes ak Wassintor arbitre wax leen li làmb bëgg ak li làmb bañ Wassintor ak 5 tonnes aca Wassintor door na 5 tonnes fayu Wassintor dooraat na 5 tonnes Wassintor door mu daanu ma naam diggante 5 dem dañ taale am Diop joxal Ndiaye eh bul demal la nga mënoon hey la ilaha illallah hey la ilaha illallah diggante 5 tonnes ak Wassintor xeex ba baaxoon na eh waay Wassintor daan na 5 doomu ki nga xamante ne nii mooy village Sène ndeysaan oho mënul ñàkk nii rek demee waa Sintor ci ñi nga xam ne làmb da koo xel muy champion di ndaanaan waas nuyu naa man lay fay ginnaaw bu ma sant yàlla juru si yoon bi sant samay ñetti waajur di sant sama papa bu baax a baax a baax dafa sonn ci combat bi sa jur moo may jox réer ndékki añ pongo bu toll ni man sama yaay maa ngi sant bu baax a baax a baax tey bu may gën a kër ga dafa jooy bi mooy sama cinquième victoire amaguma defet am naa cinq combats maa daan bébel ton daan doomu kunun daan cinq tonnes daan bébé Cheikh Mbaye euh, ak kan ak bébel ton maa ngi ci cinq Baba Jaxal na ñëw ñu bëre wala liñ jaago dama barke balaa ñoo xam mbër laa ma jeexal booy fii gars yi dañ dof rek. léegi li nga bëree. waaw ku la conseil li nga man damay contact sama grand laay soppi ci ginnaawam laa ne moom may teg lu day lu ma amee combat lépp lay bàyyi ma mënee bëre grâce à laay soppi barke Roussaay kii yàlla rek xolam la koy fay kii ñëw na sama bëre may daj dama entraîné ñu ne ma entraîné woo da topp événement man commerçant laa gars yi balaa ñoo xam ne man mbër laa ma jeexal leen woo comédien fee laa koy tegee man mbër laa ma yooyu siw naa làmba xam na ma dootuma defati yooyu damay ñëw andi jom ful ak fayda ak fit dama koo duma ci xeex bi dañ ne waas mënul xeex man homme de bazar homme bagaar yi nga ko bagaar da nga koo jàng wala dama ko dóor ay góor ba mu noyé ma daw jàpp ko songale ko man plateau Dakar plateau laa dëkk su ma doonee ragal yàlla ma sabar jël addiye grand combat bi ba petit combat bi premier ñu suñu tegee saaku ceeb ñoom ñom ma ma daan leen te kenn du ci leen benn fépp ceeb waaye yow xool nga ma man ab bind tabaatin laa yor war naa mën a ci lamb lu ne ndeysaan daa war a ñëw Bawol Seyna Mohamed yàlla baax na waaw ñoo lay fay rafet na